sëriñ Saliou Mbacké mi may woy kii kenn la asalaamaaleykum mbokk jullit yi si ndigalu sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ci ndigalu sëriñ Abdoulahi Yàllaay buur xalifa sëriñ Mamor Jaara borom sàmm si ndigalu sëriñ Abdou Mbacké xalifa sëriñ Modou Mahmoud ibn sëriñ Mamor Jaara borom sàmm mbokk jullit yi mbokk taalibé yi sëriñ Saliou Mbacké l'Ikhlas ambassadeur de Cheikh Ahmadou Bamba jiite daayiratul l'Ikhlasul Amal Kër Massar njiitu daayira l'Ikhlasul Qalbi bu Caaroy Gaar di njiitu génération l'Ikhlas international moo leen di yëgal sixième édition édition grand chant annuel bi muy amal duppe ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul sa Caaroy Gaar Tali Diallo jàkkaarloog jumaa ja mu fas yéene doon le premier février amit conférence ak programme bu am solo mbokk yi sëriñ bi nag baaxoon na at bu nekk mu duppe ko kenn si njabootu Mamor Jaara borom Sam ginnaaw daaw bi mu ko duppee sëriñ Mamor Soxna ren ji nag parrain bi di sëriñ Mor Bousso Khourédia ibn sëriñ Mamor Jaara borom Sam di nag ñaareelu doomam si di sëriñ bu soobe si ak am di jàmmam sëriñ Ousmane Mbacke Baye Fallou sëriñ Thierno Aïcha sëriñ Mame Cheikh Fall mu sëriñ Cheikh Fall moom sëriñ Alioune Fall Mbawor moom Cheikh Ibrahima Fall ba tey mbokk yi ñu ngi ko duppee sëriñ Assane Mbacke moom sëriñ Ateex moom Cheikh Mouhamad Fadal Mbacke ak Moustapha Faye di xaritam Alioune Kassé menuiserie aluminium doon it menuiserie métallique ca Mbour Abdou Samad Fall Touba Fall business Madiaw Kara Baye Fallou sëriñ Saliou Lixlaas président génération Lixlaas diaspora ñu fas si mbokk yi rendre Cheikh Asta Waalo ibn Mamor Jaara borom sàmm ak Serigne Mamor Mbacke Lappe ibn Serigne Modou Mahmoud ibn Serigne Mor Jaara borom sàmm Serigne Cheikh Abdourahmane Mbacke ibn Serigne Fallou Chérif ah mbokk yi bis bi nag fas yéene am ay invité d'honneur ñu si mel ni Mouhamed Naaru Bamba El Hadj Mame Thierno Mbacke Xasim religieux opérateur économique waa association kadduy Modou Modou si njiitalu Serigne Bassirou Amar ak Iba Karamar soxna Ako Ndiaye ak bépp membre association ndimbal njaboot mboolee membre daayira wakkaana xàqan ci facebook bi ñu ne bés bi nag mbokk yi am na ay marraine ah di soxna Kiné Karim Falilou soxna Mati Xuma taalibe Serigne Fallou soxna Cheikh Awa taalibe Cheikh Mambou Mouhamed Kunta ak soxna Ndey Diop madame Fall mbokk yi xew-xew bàngo programme bi nii la fa seen tëddee di fàttali thème di jour ba di lixlaa sul xal bi ñu ne huit jàpp midi dinañu amal jàngub alquranul karim midi jàpp quatorze heures durus xasida amal bernde yi daayira yi amal seen ziar 21 heures minuit cérémonie officielle ba bu ñu demee nag ba 2 heures kuréel xasida 3 heures du matin jàpp 4 heures du matin ñu amal Sam Fall 4 heures ba 7 heures du matin Serigne Pape Faye Zikrullah moo koy animé xew-xew baa ngoog mbokk yi Serigne Saliou Lixlaas ambassadeur Cheikh Ahmadou Bamba jiite daayiratul Lixlaasul xamal Kër Massar daayira Lixlaasul xal bi bu Thiaroye Gare génération Lixlaas international moo leen di yëgal cant bi di am le premier février yamook samedi si Thiaroye Gare Tali Diallo jàkkaarloog jumaa ji lu ko jiitu dinañ amal ngontum maam Cheikh Ibrahima Fall bëgg nañu ñëpp teewe ko fàttewuñu kenn